salaamaaleykum waa Wakaam salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ne euh, ñu ngi seetaan seen télévision OTV la télé de seen xarit seen soppi Moussa Thiam alias Kachugo euh, moo leen nuyu fi leen daan nuyoo ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa moom mi nga xamante tey euh, may nañu ñu fekkee waat li nga xamante tey moom mooy koor gi ñu ñëwaat nag si seen émission bu mag boobu nga xam ne moom lañ tuddee kaay ndogu kaay ndogu comme ni ñu ko waxee xamante ne mooy si mosquée de la divinité euh, mosquée de la divinité buñ ko waxee rek xel yëpp dafay dem si Maulana Mouhamed Seyni Gueye xalifa bi nga xamante ne tey moom moo fi nekk muy Mouhamed Nabi ibnu Mouhamed Seyni Gueye xalifatulaay fil ardi ku ñaanal yàlla bu baax ko sàmm ko aar ko suturaal ko tey nag ñu ngi ñëw si seen euh, ndogu euh, ñuy def ndogu mooy ndogu bi tey nag ñu ngi invité mbokku Nabila yi allah yaa rabbi ci kanam tuuti rek ñu jox leen li ngeen xamante ne tey moom moo fi nekk ru si li nga xamante ne moom mooy euh, kaay dog si biir euh, kaay ndogu ci kanam tuuti rek euh, incha allah ñu jox leen kon boog pavier laay wax sama cadre bi mu topp ma rek ñu dem am ay mbir yu ñu jël yaa ngeen jëf. laa ilaaha illallah laa ilaaha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 xaa la illallah يا رسول الله لا إله إلا الله xaa comme ni ma leen ko waxee woon rek sànq ci ibbi bi ah, ñu ngi fii nga xamante mooy mosquée de la divinité nee na saa ko waxee xel dem si suñu maam Mouhamed Seyni Gueye xalifatulaay fir ardi waaye tamit di ñaanal la xalif bi nga xamante moom a moom mooy tuddee eh, eh, kaay dog ñoom tamit ñu ànd ko ñun ñëpp tey nag maa ngi taxaw wax ki nga xamante moom it eh, benn euh, soxna la dama koy bàyyi mu présenté wu nuyoo les téléspectateurs de la OTV bu paree rek ñu dokk laaj bagage yi naka lay demee soxna si rek tur bi. Euh, maa ngi tudd Adama euh, man maa yor wàllu communication association Kaay Leen Doog. naka nga dundee li nga xamante ne mooy troisième édition bi ci wàllu yow mi nga xam ne yaa yor communication. ah tubaar fakaala macha allah ren moom boo xoolee sax effectif bi fi nekk di nga xam ne que ren ak daaw am na yokkute parce que booy booy def te yàlla tax. li la siy fekk c'est la plupart doo xam mais di leen sant di leen gërëm di leen wax que ni que bunt yu ubbeeku na pour ñëpp te ku ñëw tamit dinañ la accueillir chaleureusement ni mu ko waree di leen wax que ne mbiri mbiri yàlla la daal te organisation bi ren moom tubaar fakkaala macha allah dama kontaan parce que maa ngi doog a ñëw en fait dama amoon yenn empêchement mais macha allah damaa ñëw sama xol sedd na trop <laughs> bilaay. <laughs> lan ngay wax ñi nga xamante ne tey war nañ see mën a ñëw jàpp. Euh, waa di leen wax que ni. Euh, fii ku def euh, sa bopp nga defal parce que loo ci def rek après di nga am lu ko raw incha allah te tamit di gërëm euh, suñu sponsor yi nga xamante ne biñ jàppee première édition ba léegi euh, bàyyiwuñu ak ñi nga xamante ne ñëw nañ tamit pour sponsoriser ñu si suñu troisième édition bi di leen jox cant ak gërëm di leen wax que ni liggéey bi yamul fii dinañ dem tubaab fakkaala macha allah ba après affaire gën a law daal. mu ngi noonu Adama kon nag gars yëpp daw ñëw rek jàpp si li nga xamante si kaay lañ dog si maa ngi lay nuyu bu bi naka la. wallay fan nga bàyyeekoo. Ngor. naka nga gisee troisième édition bi nga xamante ne kaay lañ togg. Euh, troisième édition bi ba maa ngi leen di nuyu di leen ziar mhm. di rafetlu seen teewaay seen déplacement euh, en fait. troisième édition bi naka nga ko dundee. ah maa ngi am contactement bu baax si mhm. comme ni ko Adama waxee si organisation bi yooyu. en plus ñu ngi waajal tamit def ndogu dimanche yóbbul xalifa bi ndogu incha allah ak weekend bii di ñëw tamit ñu ngi ñu ngi. man daaw ñëwoon naa Ngor def kaax yéen ma gis ngeen ne defoon lu am solo ndax ren da ngeen yokkaat. waaw ren moom dañu yokk bu baax sax a ngi lool incha allah ñu ngi si woo ñëpp nag ñu ngi woo mobilisation ñëpp comme pour téye bés bi ñuy waajal Ngor incha allah. incha allah. aca mu ngi noonu ah comme ni mu ko waxee nee ñu ngi euh, teew euh, di waajal li nga xamante tamit moom mooy ngor nee leen fii ku ci def rek sa bopp nga defal bu baax ndax ñoom li ñu jëfuñu ko jël ko pour def ko seen biir poos mais dañ koy jox pour jox ko euh, jaamu yàlla yi tey nag gis nga suñu mbokk nabilaay la invité waaye suba ñu ngi invité ñi nga xamante ne mooy mbokk njaseen yi noonu lay demee durant mois de ramadan bi yëpp fii nga xamante ne mooy ci mosquée de la divinité

ilaha illallah la ilaha illallah gay nekk fii ci mosquée de la divinité imam ñu ngi lay bàyyi téléspectateur de la OTV eh, ginnaaw mbokk yi toog yëpp di ñuy seetaan ci émission bi nga xamante ne mooy eh, kaay ndogu ci biir eh, kaay leen ñu dog yan kàddu ngay mën a lijjeen dénk ñi nga xamante ne ñëpp ñoom ñooy mbokki yi toog ñu seetaan ah, sant yàlla baax alhamdulilahi rabil alamin di ziar mbokk yëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala junni junni yi yàlla di goreel ci weer wi yàlla nañ ci suñu borom boole euh, di ko ñaan junni junni yi muy jéggal ci weer wi yàlla nañ ci yàlla boole waaye junni junni yi muy yërëm ci weer wi ci yàlla boole suñu xiif yi ak suñu mar yàlla bu mu neen yàlla na yàlla nangul ñu jaamu yàlla gi te lépp luñ ci rëccale moom yàlla miy jéggale yàlla nañ ko yàlla jéggal loolu yàlla mën na ko yàlla yàlla defal di am mbégte ak contentement bu rëy ndax kenn ku nekk xam na ne weeru koor weeru jaamu yàlla euh, comme ni koy waxee weer la woo xamante ne weeru profito la ci ci jaamu yàlla rawatina na ci jaamu yàlla bu mel nii li lii lii lii lii mooy lii lii mooy jaamu yàlla bi gën a mag mooy joxe ñam euh, damay faral di wax ma ne sëriñ bu mag bi dafa amoon ay naar yoo xamante ne dañ ko mësoon laaj di ko wax naka ndax xam nga loo xamante ne mu euh, moom bu amul woon suñu maam rasulullahi salaa salaam du am euh, sëriñ bi daal di leen tontu ne leen xam naa ko ñu ne ko loolu lan la mën a lislaam bu lislaam amul woon kenn du yónni seen maam kon kenn du xam seen maam ñu ne ko ndax xam nga loo xamante ne euh, moo euh, euh, ëpp doole lislaam mu ne leen xam naa kay ñu ne ko loolu lan la mu ne joxe ñam ndax nit bu lekkul ba suur naanul ba màndi du mën a taxawal dara ci lislaam kon joxe ñam dafay nekk loo xamante ne symbole bu rëy la ci wàllu lislaam lii nag ku ko gis xam ne lii lu am solo la ñuy wax naan képp koo xamante ne def nga ci sa alal yàlla na ko yàlla ful tabarkel ko ku am yéen a def ci te defoo ci sax yàlla na la yàlla fay ndax lii eh, day teraanga boo xamante ne ñëpp la war kenn ku nekk koo xamante ne tey jii lii wax ne borom alal eh, jaamu yàllaam bi gën a gaaw mooy joxe joxe rawatina joxe ñam te lii ku ko gis xam ne nag ah lii ay jàmbaar ñu ngi si ñu ngi si ginnaaw ñoo xamante ne ñu ñuy dooleel ñu ngi ñuy dooleel bu baax a baax di def seen alal te te bëgguñu sax feeñ am na ñoo xamante ne li ñu si def euh, bëgguñu si feeñ bëgguñu kenn ku tudd seen tur loolu nag ñuy def ñoom yàlla rek moo tax ñu koy def yàlla mi tax ñu koy def yàlla leen fay ñu si woo ñëpp rek di wax ne ñu de suñu sañoon fii lañ koy dressé ba mu fees dell ñëpp ñëw fi loolu nag suñu doole demeewul noonu waaye képp ku ci jàpp yàlla fay la ndax euh, ku jëfal yàlla yàlla fay la maa hindakum yan fadd wa maa hindallahi baaxi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Imaam Lamine si kàddu yooyu nga xam ne moom la yëkkati moo tax gars yi daw leen ngeen ñëw jàpp ci bu baax a baax def si seen dërëm def si seen ñàq def si seen li ngeen xamante moom la leen yàlla dénk ndax ñu mën ci teral yi nga xamante ne tamit ay jaamu yàlla na ay ca ñu si profité bu baax rek di sant bu baax di gërëm ko mel ni bàjjan ndax day jàmbaar ci mbir mi mm-hmm. euh, ndax euh, taxawaayam yàlla na ko yàlla fay ndax ku gis ni mu taxawee mbir mi sonn ci lool nga xamante ne su xëyee suba ba ngoon du dal lekk du tal naan di daw pour nit ñi képp ku fi ñëw am mbégte ku fi ñëw rek gis sa bopp ku fi ñëw rek euh, yëg ne ah fi nga ñëw daal jar na ñëw euh, di nga fi ñëw jaamu yàlla waaye bëgg na ku fi jaamu yàlla sooy génn rek euh, nga génnaale ak contentement ak mbégte yàlla na ko yàlla dolli sutura li ñi nekk ci ginnaawam di ko jàppale itam yàlla na yàlla fay leen te taxawu leen ndax moom jigéen la waaye am na ñu koy jàppale te ñoo ñu koy jàppale tamit defuñu ko dara lu dul ngir yàlla ak bërëb bi xam ne ne place u jaamukaay yàlla la waaye place la boo xamante ne ku fi indi lu mel nii ah bëgg nga jaamu yàlla ñi koy jàppale ñëpp yàlla na yàlla leen te dooleel leen Euh, ñu ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Hadj euh, Lamine euh, kàddu yi rafet na bu baax a baax en tout cas ni mu ko waxee rek ñaanal bàjjen yàlla defal ko taw tawféex taysiir gën ko yokk balaa déwén yàlla gën a yokkaat xéewal yi te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def si barke borom jumaa ji ñu taxaw fii ñaanal tamit maam Sega bu baax a baax a baax a baax vraiment ñoom dañu am taxawaay ci nee naa la ñetti at du trois jours du trois mois bu dul woon dëgg kon ba tey saay na mu ngi noonu kaay leen ñu ndogu ak kaay leen ñu dog ci biir OTV noonu lay demee incha allah ci kanam jaajëf Eh, eh, ñu ngi noonu ah nee ne kay mbir maa ngi noonu ñu ngi jëm ci li nga xam ne moom mooy cëppaandaw bi waaye tamit nee naa eh, taxaw nañ feex jàmbaar jaxaw koo xamante ne macha allah nee naa ñu wax yoonu nabi allah te ñu ko ci mënuñu wax tamit jumaa ji tamit boole ñu ko bi tur bi ñu ngi lay jaar bu baax a baax di la bàyyi téléspectateur de la OTV nga nuyoo ñoom ñu doog dugg ci mbir mi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur yu OTV ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziar bu baax di leen baalu man nag maa ngi tudd sang bi Mouhamed Seyni Gueye nekk fii ci mosquée de la divinité di saytu bërëb bi. ana naka nga gisee li nga xamante ne moom lañ fiy organiser chaque année ren muy euh, troisième édition bi tey naka nga ko gisee. waaw waaw gis-gis bu rafet rek lañ ci am di ci sant yàlla rek di ñaan yàlla ñi nga xamante ne ñoo ciy dugal seen alal lépp luñ ci dugal ren rek déwén ñu mën lu ko raw wax dëgg yàlla li nag geste la boo xamante ne bu ñuy rafetlu ndaxte am na ñoo xamante ne dinañ fi ñëw pour entraînement am na ñoo xam ne dañ fiy doxante di fi ñëw bu jotee ñu tombé fi yem ci lii da leen leen dimbali parce que bu ñu fa jóge woon balaa ñuy egg seen i kër day fekk ndog fekk lañ ci yoon bi kon nag bu ñu fa organiser lu mel ni occasion la pour ñu profiter aussi pour ndogo si wax dëgg ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax tey euh, euh, xale yi niñ koy jàppee nii euh, di ko def chaque année boo amoon kàddu yoo leen di dénk yan kàddu lay doon waaw xanaa ñu gën a rek gën a góorgóorlu rek lépp loo xamante ne def nañ ko ren rek déwén ñu jéem a def lu ko raw rek pour moom ay tànku avancement mm-hmm. waaw loolu rek laa lañ ci dégg waaw lan lay doon Euh, di sant yàlla rek di sant yàlla di ñaan yàlla koor gi yàlla nañu yàlla may eh, ñu eggale ko ci baatu alhamdulilah rabbil alamin rek lépp loo xam ne wóor nañ ko ci suñu xiif ak suñu mar yàlla bu neen yàlla nangul suñu koor bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam amiin amiin yaa allah euh, Mouhamed Nabi euh, nga sànni si rek ñaari kàddu rek yow tamit wax ñu tey ana naka nga gisee li nga xamante ne tamit xale yaa ngi ko organisé waaw sant yàlla nuyu téléspectateur OTV nuyu la Moussa nuyu vieux si caméra bi nuyu PDG waaw sant yàlla bu baax xam nga mbir moom li may faral di wax rek yiw buñ la ci oowee lu mu sori sori sori lu mu metti metti metti wuyu ji moo la ci war te xam nga nit ñi xamuñu fii nit ñi di rawante mais yu mel ni si la nit di rawee morom ma ndax mbaax nekkul nga jël sa kanam rek jublu penku di kabara xoru konxo si jot waaye génne alal ak alal ni mu saxee si xol def ko ay teraanga jox ko jaami yàlla yi nga xam ne ne fu nekk la ñuy bàyyeekoo man am na si jëmma yoo xam ne ne tey laa leen soo a gis fii kon da ngay xam ne ne ñi ñee ngi bàyyeekoo fu ne or ba ngoon jot nga jox nit ki lu mu ndogoo donte ne tàndarma la waaye teraanga yi ñuy def fii da ngay xam ne dañ ko defee yéene di nga ndogu tàndarma di nga naan kafe di nga naan meew dinañ la tegal pain def si liñ si def si biir tegal la yeneen yoo xamante ne accompagnant la ba si ay fruits ay jus lépp au complet nga xamante ne boo jugee yaakaar nga ne da ngay fi nga toog dangay dangay da ndogu da ngay xëdd loolu nag bu ñu ko defee si place bu teddee ni di mosquée de la divinité nga xam ne ne place wéetal yàlla la nit ñi di fi ñëw di wéetal yàlla fitna fitna bi ñu daan am bu ndogu amul dañ ko teggil dañ leen ko teggil léegi nit ki mën na toog fii wéetal fii yàlla ba dogu fekk ka fi mu génn ndànk ndogu si tranquillité am bu ko neexee dugg ju liggéeyee soog a yéeg ñibbi kon nag loolu bu fekkee maam Séga Gueye soxna Nabou Gueye di dogitu Maulana Mouhamed Sène jiite nañ initiative bi muy kaay leen ndogu ànd see xale yi waa Ngor waa kam ah du ñu man lu dul magnifier ko te saluer ko tey ñaan suñu borom yokk leen dooleel yokk leen kattanal ba seen yéene. kawe njortu yi barki Nourou Waly yàlla defal leen ko barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf euh, Mohamed euh, Nabi dégg nga kàddu yoo nga xam ne moom la yëkki euh, sang bi tur bi naka la. Ousseynou Camara. Ousseynou ana tey lan la yàlla wax ci li nga xamante ne moom mooy joxe ñam. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di ñaanal suñu kilifa Mawlana Mouhamed Nabi ibnu Mawlana Mouhamed Seyni xalifatullahi fil ardi yal na yàlla dëgëral ko te kàttanal ko waaw ah, fa tabaarakallahu comme ni nga xamante ne ñi fi jaar ñëpp noonu lañu wax rek ndax wax dëgg yàlla joxe ñam moom kenn xamul yiw bi nga xamante ne wax dëgg yàlla moo ci am ba tax na yàlla du mas dañ dañ dañ di àndax ñi nga xamante ne dañuy joxe ñam di ànd ak ñi nga xamante ne dañuy joxe ci ci xol bu sell di ànd ak ñi nga xamante ne dañuy joxe ànd ak yéene wax dëgg yàlla te lii moom bu ñu ko gisee xam ne nit ki mu ngi wóor ba ndogu jot fu waay neex fu waay ne nit di fa jógee di ñëw di ndogu se loolu ak sant yàlla la ak cant goo xamante ne am na tàmbaliment waaye amul fu mu yem wax dëgg yàlla. tey tey boo amoon kàddu yooyu dénk xam naa ne jot amul instant bi waaye boo amoon kàddu yooyu dénk xale yi lan lay doon. waa ñu gën a góorgóorlu parce que lii jaamu yàlla la amul jaamu yàlla bu ko gën a rëy nit woor ba ngoon jot nga jox ko mu dog loolu amul jaamu yàlla bu ko gën a rëy kon loolu ak góorgóorlu rek la laaj te amul kenn koo xamante ne dina si nekk ba gis si lu dul njariñ ndax li nga si li ngay def lépp yàlla rek moo tax nga di ko def li ngay def yëpp ngir weer bu màgg bi moo tax nga koy def ak si place bu tedd bi nga xamante ne fii nga xam ne mooy rawukaayu jamono ndax sang bi moo naa Mawlana Mouhamed Seyni dañ ko wax mu topp jumaa ji mu jóge fi mu ne di ko topp ba dal fii nii te nga xam ne bi nga ko koy wan ñu ngi ko ko wan si forme gaal nga xam ne mooy gaalu bi nga xamante ne mooy rawuwaayu jamono kon fi képp koo xamante ne ñëw nga fii mooy ni ko Seydina Nabi fay waxee dinañ ñëw fii jaamu fi sa borom ñëw xewlu ba julli géeyee ba noppi mën a demaat si sa njaboot loolu amul lenn loo xamante ne dañ ko si war di soññ ñi nga xamante ne dañ si nekk surtout partenaires yi di jàpp boobu ba léegi ñun amuñu lenn loo xamante ne dañ koy def lu dul kontaan ak jeunesse su ngor wakaam ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne sax duñ ay nabilaay ñëw nekk ci liggéey bi ngir jaamu yàlla kay loolu dañ si sant yàlla bu baax a baax di ñaan ñëpp ñu góor góorgóorlu te nekk ci liggéey bi nga xamante ne si la rawukaay yi nekkee wax dëgg yàlla fa tabaarakallah jërëjëf euh, sang bi kon bokk kaddu yaa ngi euh, noonu nga xamante ne moom lañ fi yëkkati gis nga li nga xamante ne yëpp moom lañ fi taataan euh, depuis biñ fi ñëwee si ngoon ba léegi muy troisième édition kaay leen ndogu si biir kaay dog si biir kaay la ñu dog sur la OTV tey nag maa fi àndaloon ki nga xamante ne tey moom mooy pavier si cadrage bi di leen joxaat dig daje beneen yoon feneen di gërëm Mouhamed Nabi Faye bu baax a baax ah bàjjen incha allahu yaa rabbi beneen yoon rek fépp foo mu nga fa di joxe ndogu rek nee naa boo la ñu owee si 77 620 95 10 wala si 70 587 62 24 incha allahu rabbi ñu ñëw defal leen ko bu baax a baax a baax ayca mu ngi noonu euh, la OTV la seen yëfu bopp yéen ko moom kaale ñu ndogu la si biir OTV.